non dama leen leen di baal sama pizza bi laa xaar mu ñëw ma lekk leen di bàyyi ci ndax dañoo dof ñoom es bi wéru. non damay dallu damay dallu donc xoolal da ngay ànd ko may may leen badma. léegi damay dallu waaw léegi Amina Saliou parce que jël nga ndam yi dallul. Adama. Amina. ci loo nekk. wax. naaj alhamdulilah yaa ngi waaw maa ngi cool yow nag yaa ngi si jàmm. yaa ëpp doole kay sama xarit bi noq nga leen kay. parce que Serigne Touba doo nit nag. billaay wallaay tàllaay doo nit sukar femme dépression dóor nga leen bañ tëdd te xam lu ma neex ci aad Adama lu ma neex. comme lu ma neex ci kaa bi. mooy ko ñoom dañ la doon jéem a suruxal te yow nga xam li nga xam bàyyi leen ci biir. bàyyi leen ci biir daal di waay noonu nag. xoolal fi mu toll nii. ah jël Dior Dieye Dior Dieye dama la Dior Dieye dafa ko woote moo tax ma ne ko Adamo dalal xam nga man nand naa xam nga man nand naa xam nga man nand naa mais Dior ñi ay noonam lan Dior mën naa daan ci pièce ma woo Dior sama téléphone premier jour ne ko wuy ma Soko ak Awus ñii xuloo ñoom ñaar bul daanu seen pièce nag mukk bul daanu seen pièce ba génn ba génn mm-hmm. di ci wax dara après ñu lay daaneel bu ci wax parce que dil la mais man bàyyil ma séese bi Dior Dieye loolu la ko wax mm-hmm. xaaral moo Dior ngeen dégg Mia tey am nañ ndam de. es bi am nga ndam ñoom am nañ dépression wéruñu jaaxle dañ taal seen live di wax waxu dof dugg na fi génn na fii petit yi patata yow dalul may leen bad maa jamono ji bu leen faale yow fokkisal rek soko buy wax say wax tasal tayu famille bi parce que es yàlla moo ko weer wérul soko dof la yow muusal rek bu ñuy jaay muus yow wan leen ni xoolal jaay leen xelu dof comme ni nga doxaleeg ñoom awus mi ngi wax ak yow. maa ngi laaj yaa ngi tas nday fan bi ci suuf te kenn yëgul. bu fa demee. Eh, Mia kat naa ndeyam ñoom ñëpp xuloo nañ seen biir. yaa ngi soko rek la nit ñi bañ. Mia aja maa ngi taa jëlal. salaamaaleykum. ça va tey naa lay. maa ngi jëlal waaw. Maguita dina sa casque yi bu dee da nga yóbbu ko ci naaj bi. <laughs> lii mooy yaa ngi may. dégg leer na. waaw. dama ne su nekkee laa wax da ngeen di foo arrêté leen parce que nag su ko su ko commencé na amee amee dépression boobu tey baaxul tey laay ba ay waxu dof kasa nag la si doon doon di wax. dof na de arrêté leen. Adamo sama pizza yaa ngi nii di waaj ñëw a ah? man de. Adamo arrêté leen laa wax. arrêté leen su ko commencé na amee dépression. da ngaa ñu jekkali rek wala jëru ko. baal leen ko dépression baaxul billaay dépression baaxul ay waxu ji tey jii la doon wax baaxul aba aba jadda ay ay waxu dof fi kenn xamul. soo saag ataay Adamo. waaw. yaa ñëwul waaw. Magita Adamo du yaa ngi may dégg. waaw. Magita ñëwul yaa may dégg. maa lay dégg waaw maa ngi ñëw dama doon dama doon dama doon kii déplacé wu ndax réseau bi neexul woon. waaw bisimilah. waaw mooy daal li ma la wax rek su nekkee tamit nii da di foo arrêté leen parce que su ko commencé naa amee dépression parce que tey jii nii live bi ay wax daf dong nag la fa doon di wax xamatul nag lan lay lan lay lan lay wax Adamo ngir yàlla ku jekku da ngay baale ay jullit lañu. ngir yàlla ak yonte bi guerre bi jeex na nag ngir yàlla jeex na xolal man ma daw daw daw ba xamatuma fan lay <laughs> daw naa ba miir. ma jéggal ko daal. allo. doy na jéggal ko. mais baaloon naa ko démb sax mais tey dama doon leeral dil bi ñu doon wax ne doon koo dil te ñu rek ni ma leen échoué loo ak ak ma leen jaar. laay doy na nag na Adamo ngir yàlla doy na fii moom xoolal bés dooli dara dara dara page ba moom tëj ko rek. tëjal foofu nga jàll si leneen maa la ñaan lii nag. Deve bere dalla bocca? Sì. Posso Ma io nga dëgg Maguita amul benn problème léegi juste yi deseen ñëwal. waa Ada nuyu naa la ziar naa la man de instant yi man sax quoi man audio awus ci tax ma dugg quoi. mais Awouskisi yow xam nga ne gone gone du katt mag Awouskisi gars yi la jiitu si town bi. Awouskisi Awouskisi ñoo la jiitu si réseau fuuf fuuf fuuf fuuf yow maanaam yow su ma déggee kàddu gi yow lemu yi lal yëpp yow naan nga ko bu yàgg quoi dee ko ci biir muy joué le jeu ñu ngi la bëgg a focus loo si foo sëriñu tariyaa be si mu tuddati Ahmed <laughs> ma bàyyi leen fa Ami Cissé lañ la bëggoon focus loo dof bi bi ut buzz. bàyyi leen fa dem wëli famille soxo man pour tégal ah awus ki si du katt mag ñoo la jiitu si àdduna bi jiitu la si réseau yow boo fi defee quatre ans sala yem awus ki si nit nekkal nit awus ki si ah! awus ki si nit rox non bàyyi dalal rox ba pare après. ma yegg kii Luka euh, waa Adis ci loo nekk. donc dégg nga sa bopp si vocal yi. ah. dégg nga bopp vocal yi soo man mii. waaw aws nee na aws nee na ko roqee gars yi eh, mu ne mu ne soko gis nga gars yi dan dan lay bàyyi xel dan laa ragal ñëwewul la gisoo moo tax moo tax xam na ne da rafet xol boo ñëwee moo tax rox su di la woowee papa yéen kii déggal yaay nijaay tontoo nangam vocalité non man kan laa rek kan su bisal laay sa biita ay na se xoolal man kooku man waxuma ay waxam man waxuma ak dof boobu waaw man soko jàmm laa séq moom yaayam tudd roqee ma tudd roqee mu naan ma yaay ma naan ko doom. yaa ngi dégg. amut mooy seytaane bi. kooku man waxuma ay waxam baal ma dof boobu. kooku wéru seytaane international mais Adamo. damaa yëg pour ma wax la leen waaw yaa ngi dégg Adamo dama bëgg nga bàyyi problème bi mu sedd ndax gis nga lii dafa. sara waa wax naa la ko sànq. waa ñun ñëpp ay sénégalais lañ te xam nga am na yenn yoo xam ne yow nekkoo ci dara. xam nga kan mooy doomaraam mbokk soko bi ñëw fii naan mu ngi yàq soko ndax mbokk mbokk la yaa ngi dégg benn libaru mbokk moo gën ñaari kilo jàmbur yaa ngi jàppalante leen àdduna amut solo bàyyi leen seen mbokk yi ngeen di yàq mbokk soko lu mu bon bon bon bon tam seen doom la ak tam lu mënti xew waroo leen a ñëw ci tuwaal bi di ko weer aadama deful dara mais yéen mbokk soko yii fi ñëw ngeen ko yàq foog ngeen ne moom ngeen di yàq yàqoo leen ko de seen bopp ngeen tuutal seen bopp ngeen tuutal aadama bàyyi def problème bi dafa sensible ñun ñëpp ay sénégalais lañ yow borom sax bu rafet nga neex laa waxal ba ma eh, ah? ñaanee ci suus waaw mais dama doon leeral audio yi doon wax dëgg la kooku waxuma moom moom waaw dofu dubaay boobu saytaane la muy mel ni paan muy mel ni añu nday saytaane la moo rëbbaaje lii soo sax melul woon nii moom moo yàq soo de xoolal daa dem yónnee ko vocal laajal ñu doon déglu vocal naan Rokhaya da moo tax dafa xam ne da ngaa rafet xol boo ñëwee naan la yaay tontoo xale yi yaay bàyyam vocal yi dañ ko teg ñëpp di dégg. man damaa am jotam aw ma sax jotam. mais daal loolu daal laa amoon ci lu ma lay wax dégg nga. ok amal jàmm yow loo ma ñaan wuy ma famille Sokone dootuma gis ko baal naa. waaw nga nuyul ma madame man man ñu ngi may woo sax. jeex na Rokhaya loo bëgg laay def sama waay ga. Adamo bisimilah. tey ci yow laa doon def émission léegi. ah sama yaay ji. damaa dugg ne dama laa bëgg am ku ma woo ko ko ci biir ci biir uh, kii bi tiktok bi am ku daal di ne maman Aïcha yow damaa génn ci yow ndax da ne Adamo laa bëgg ma ne ko maa bëgg Adamo tey maa bëgg Adamo ëllëg maa idaali ñoo toogoon léegi di def émission naa la envoyé lien bi ngay sama xarit ma ne leen toujours nu taf ko saaga ndayam. yaay boo ko déggee muy wax nit ku baax la séeréer si maa la benn yoon lay tooy. waaw waaw man maa la bëgg yaa maam Ndiaye Savon dama koy wax dawuma ci saala yaay ndeer. dama xarit nga de. toog naa nga ci biir ba dugg ci live nga ne sama yaay ji teral ma. dagg la de. nit ñi ma xam dëgg damay reyante ndax yow fu ñu waxee Idaali wax na ko léegi nee na xol bu fu ma waxee mu ne ma xol bu rafet la am. dama lay ma ne leen maa ko bëgg tey maa ko bëgg ëllëg sama doom la. maman Aïssa bala ngaa wàcc ma teralal la. mu ne muy def li muy def ci suuf. waaw yow xam nga ne yow man man sama yaay nga. acca juste bisimilah man nga continuer. waaw aada comme ni ma la koy waxee rek comme gaa lay ñaan comme instant yow yaa caabi ji quoi. Mhm. man moom du la ci wax dara parce que fii moom ku ñëw di ñaan rek waaw ngay wax mais boo xëyee da ngay def loo sentir man loo ci décider rek lool la mais man li gars yi wax laa wax audio yi des ak li nga ko xamal moom Choco mën nga ko suturaal quoi waaw lool lool laa gis. waaw yooyu moom yërëm ko mais nag yooyu yëpp ci mbokk yi la jóge joor jëy laa ko mais nag mais dafa am dafa am leneen lu may dégg si suuf parce que ñun xam nga même équipe la muy man di yow di joor ku laal joor rek da ñuy laal te combat boobu seddoon na maanaam mi ngi wax ay propos yoo xam ne dafa mel ni joor la bëgg a attaqué waat ma koy wax na bañ a créer guerre mondiale hmm. comme moom suñu nit la vraiment man bu ma sañoon Adamo épargné la Choco mais lenn rek laa lay meree encore la may wax démb laay waxaat tey tey joxaat nga benn maire buy défendre Kaliphone joxaat nga ko balle perdue loolu di geste bu ñaaw Choco encore une fois dem naa bay def demande ma ne noo jaru ko baal gars yi bu ñu yéegee sa kaw nga leen humilier maire boobu mag la yow yaa bañ ba tuddee ko mafia rotti jam wala aadamoo déggoo kooku. maire bi bi man loolu laay bañ. waaw nan ngay fekkee mafia buy toroxal doomu aadama. di taf sa hmm? moroomu eh, sa moroomu ñi nga maaseel di seen moroomu hmm? yaay. dafa def mm-hmm. di saaga seen ndey di wuññi seen sutura nga naan yow yaay yow yaay yaayu ma fi yaa boobu lu mu toj cottu ndeyam doyut te Mariama Diallo maa ngi yow maa kii euh, chrétien boobu maa ngi ñëw ci yow de am naa say dossier ma ko maa ngi ñëw damaa kan la dinaa ñëw ci yow waaw non non moom ñëw ci maire bi exactement maire bi njaago bi dinaa ñëw ci moom yow tooga déglu waaw li ma li ma la mën a wax mooy maanaam man bugguma ko humilier nit bàyyi demal ba pare demal demal. xaw ma ban ban yaayu saaka xam ngay doon da ay rocc jam de mais ba ba ngay dee boo gisee mafia buy tuddee seen bopp rocc jam pour toroxal hmm. doomu aadama yi saaga maam Ndiaye Savon yaayam mami Kobara Selbe keneen ak keneen ba ba ngay dee dootoo woowaati naan man maa yaayu ñooñu dootul amati. maire hmm. maa ngi ñëw ci yow man maa aadama maa wax a yow maa wax ak yow. mais Adamo est-ce que xam nga ne gàcce maire bi tey gàcc euh, man xamoon naa ne Choco da koy humilier bloqué ko gàcce googu man musuma ko gis. xam nga lan moo mhm. waral loolu suuf. Mhm. dama lijjanti ay information maire bi ba am ko. Mhm. lijjanti ko ba xam bi mooy kan. léegi maire bi am na ñu jaar ci moom sib na loolu. bu bëgg loolu bañ a am. moo tax muy mel na luy trahir lolo looloo merloo Choco comprendre nga. waaw léegi nag Choco loolu la naan nag. moo tax mu di ko saaga mais loolu teewul ma bàyyi maire bi de del toog di seetaan rek. Mhm. mais gàcce la gàcce gu rëy la man dama. rus naa woo maire bi ci téléphone ba mu ñëw ci live bi ñëpp dina ne man duma yaayu kenn te dootuma ko defati sama àdduna kooku kay maa loolu de boo ko defee tooj tooj fi nag boo ko defee de toj fi mais Adamo man sama nit ñi demb dama ubbi débat équilibré yow ak Choco mais lan moo jaaxal gaay yow nan nga amee accès biir kër Choco moo jaaxal nit ñi ba tey dugg si biir rajaxe ko man nag wuy ma dama ta dama tëddee ñaaxaanaay de damay ubbi bi wax sa xalaat su ma ku su sa live di jeex may taal live léegi léegi wax sa xalaat ànd maag yow ànd maag Choco mais ni nga duggee ci biir kër gi rajaxe kër gi dugg si douche yi mais douche bi noo fa amee accès douche bi. gars yi su live bi paree léegi jox naa leen rendez-vous wax sa xalaat ànduma ak Adamo ànduma ak Choco man soko lenn rek moo ma metti li muy torxal gars yi si kaw chaîne bi mais douche bi noo fa amee accès douche maire bi man looloo ma yëm quoi. wax la benn affaire. Hmm? ku la xaalis ne fait pas le bonheur. day hmm, hmm. wax ne l'argent ne fait pas de bonheur ay dul Mhm. l'argent mhm. moo tax nijaayu soko génn moo loolu lay wane du leen ko defal l'argent wa mhm. tax jarbaatam génn l'argent wa tax yaayam génnoon xam nga maanaam xuleel la xaalis ne fait pas le bu baax ma wax la xaalis loo ko jënd jar na topp ñu naan aadama mi ab dof la ñaawaayam bi nu ko nit di nobe ku koy fóon aadama gémmiñam gu tooy gi aadama ni mu wéradee xool ko bopp bi jabar ji laa yërëm da jigéen ñi xamuñu lool de ah ah. da ngeen mhm. dof yow boo jantalee ngande ah rafet te tekki woo sarab ndayam fi nga dëkk ban gel moo lay dalay trahir far force. Mhm. lii doxatu ci àdduna bi foofu loolu mhm. doxatu fi de. góorgóorlu leen ngeen liggéey. góorgóorlu leen ngeen liggéey. ku leen toog naan leen ay l'argent na feta day duul barki alxuraanu karim waxul dëgg. billaahi léegi nag soko dama ko dàq jeer. ëpp mm-hmm. ko xaalis. financièrement financé. xam mm-hmm. fi may jaar. moom mu mm-hmm. dara ndax ku muy jënd sama famille amul. ñëpp mag ñu dara. maire bi fi génne lee quarante mille laa ko may kuy mayee quarante mille cinquante mille cent mille deux cent mille cinq cent mille ay un million cinq cent nga dégg ne aadama mi ngi koy may kon ay. ko wax kon kooku foo koy jaar.